Eh, non, eh, je ne suis pas d'accord. Les l'a créé de toutes pièces. Je ne suis pas d'accord sur cette ah expression. Je m'explique. Oui. Sonko ay kàngam yu administration ay kàngam laa wax mën naa leen citer ils sont une quinzaine ñoom ñoo toog di wax Ousmane Sonko n'était même pas là-bas. di critiquer la bonne marche du pays. pendant des années chaque vendredi ñuy daje en tant que cadre di waxtaan ba bis ñu ni waaw mais dañuy wax rek mhm. mais lu tax du ñu agir ñu ni nanu agir Ousmane Sonko n'est pas là-bas bi ñu waxtaanee ni nanu dem adhérer dans un parti politique ñii ni nanu créer parti politique ñuy waxtaan di waxtaan ñu ni non boo créé parti politique day nekk benn parti de plus wala quelque chose ñu ni boo demee fenn di fa bu buuxante bala ngay dem. Mm-hmm. donc nan ko gëm la ñu créé suñu parti politique. bi ñu créé parti politique il faut am ko jiitu c' est là-bas où ces gens là ces quinze là. Mm-hmm. réfléchissent kenn ku ci ne xam nga ni yow man duma ma jiite parti bi. Mm-hmm. ñu ni il nous faut quelqu'un avec des très propres benn courage de lion. à une mais de fer xam-xam bu wér à la prochaine réunion que chacun vienne avec une proposition crois dans toutes les propositions il y le nom de Ousmane Sonko soo nee ma 19 yooyu ko créé mën naa nangu Ousmane lii moo am yéen lu bëgg nga def le président du parti il dit pourquoi moi ñooñu argumenté convaincre il leur dit ok. dinaa participer à cette réunion il va chercher Birame Souleye il va chercher euh, l'autre là Bassirou Diomaye Faye parce que ay rakkam la ñu nekkoon ci biir impôt domaine jub jub mën na liggéey am xam-xam mu ànd ak ñoom ñu dem ñu taxawal Birame euh, Bassirou Diomaye fait partie de ceux qui ont écrit et ceux qui ont déposé mhm. ngeen may ma je rends hommage à quelqu'un moom rek laa xam ci ñu fi des à part Jamil Sané mooy euh, euh, Matar Sène le trésorier de Pastef qui a tout perdu dans Pastef qui a été humilié par l'administration pourquoi parce que il était Pastef mu garde toute sa dignité les gens ne le connaissent même pas du wax du def il n'apparaît même pas à la télé il était directeur là-bas au trésor ah wallahi mi ngi mi ngi fii au Sénégal avec toute sa dignité qu'on le rétablisse et je souhaite que à ce que autorité rétablir que dans ses droits donc je compte Ousmane Sonko jël affaire bi agir en mais de maître am problème sax pour dem ñu invité ko télévision pour ñu invité ko télévision sax problème la il parlait dans il partait dans les universités dans les regroupements des jeunes pour faire des conférences va dans le net tu verras toutes ces conférences mm-hmm. muy dem a dem a dem a dem dem ba ñëw dem avec un plus fort rest mais nag les grands intellectuels ku mel na ñoom Diallo Diop ñoom Madiaye Mbodj doyen Alain Kane et ñeneen toog xool xool xale bi am ci moom espoir ñoo gunge ko tekk seen mbagg mu dem en 96 il devient un député avec le prix Forest. il a monté à l'Assemblée nationale ce qui était un député. Mm, mm, mm. je peux dire en dehors de de 15 là c'est lui qui s'est forgé moo wane ni man may taxaw dëgër avec tout ce qu'il subissait à l'Assemblée nationale. ah ce n'est parce que démarré na ñu bëgg bloqué. ils ont créé des problèmes l'affaire Adji Sarr l'affaire Barth et consorts ils ont été là léegi nag par transition maa ngi dem ci li kii waxoon sur le problème du président euh, Macky donc donc Ousmane Sonko n'a pas euh, on l'a pas créé de pièces des 15 l'ont mis dans le prix, il s'est créé lui-même de toutes pièces. Mais l'absence aussi de l'opposition quelque part. L'opposition, euh, non, non, non, non. Mais le monde qui débat. le problème qui se pose, il est arrivé, il est arrivé dans la scène politique avec un courage qu'aucun opposant n'avait. bu ñu amee kenn ko non bu xaaral xaaral xaaral bu ak même non bu amee kenn déedéet déedéet bu amee kenn koo xam ni ah. mën nañ ko teg à côté de Ousmane c'est Barthélémy Dias mu ñëw avec un courage. def li mu def ba dem. gis nga ce régime là pour en venir à Macky Sall. Mm. woon seen seen tête. Uh-huh. ni ils allaient perdre le pouvoir. Uh-huh. pour ñoom ils étaient là pour quarante ans. Uh-huh. benn obstacle la ñu am bu méttee métti amoon noonu ay obstacle mais obstacle bi ñu am bi gën a ngande si Ousmane Sonko essayons de le détruire. wax dëgg on peut le considérer comme la lanceur d'alerte mm-hmm. au lieu ñu jël alerte bi ñu dàq ko rumeur mm-hmm. yi wax ni waa ji bi mu nekk bu ko dàq mm-hmm. dafa leen kii un jeune fonctionnaire yorul dara di ma fonto man président de su ma ko dàqee ba taytul leneen lu dul dépense dina dem booba il n'a pas réfléchi que le gars la mais dañ ko wax ni ko boo ko dàq xam nga lu ñu ko proposé bu ko dàq ma jox la faiblesse am xam nga kenn sa faiblesse mm. jox ko responsabilité dootul nelaw guddi dootul nelaw bëccëg. Mm-hmm. benn problème lay def il se il va faire focus sur ce que tu lui as confié pour réussir day sax fàtte politique bi. Mm-hmm. mu ne kii di ma fonto ah wax leen ma dama koy dàq su ma ko xañee dépense ba muy daw di dàq dépense dana tal leneen lu dul politique mais il ne sait pas boobu def na ki at yoo xam ni mais bu demee dans l'ordre on dañ koy kii comme expert fiscal il est devenu expert fiscal et il gagne deux ou trois fois bi ñu mën doon gagné. Mm-hmm. les gens se la question lu muy dundee. mais am na cabinet boo xam mi ngi fonctionné et Ousmane Sonko travaille jusqu'à aujourd'hui xanaa boog bi ñu ko falee premier ministre mais avant cela il travaille deuxièmement bi ñuy dem ñu ne leen ko dàq jóge foofu ñu dem à l'Assemblée nationale bu mu fa waxee créer ko ay problème imaginez mu dem ba interview à l' assemblée nationale génn responsable politique song ko mais bi mu koy song dafa fàtte ni waa ji euh, que ceinture noire la ceinture noire la taekwondo. borom baraakis waaw Dumbul borom borom borom borom xamul ni waa ji ceinture noire la taekwondo. waa ji ñëw taxañ ko rapidement ah. teg ko fale. Mm. def ko li mu koy def bàyyi ko génn ànd ko dox. moom mu taxaw wooy dama ko dóor ba jaww daal di tout état mais pour en revenir à notre sujet dem nañu ba jéem ko humilier loolu xam pour pourquoi pour rek yàq ni dañoo xeex assemblée nationale wàññee personnalité loolu nit ñi gën ko bëgg ñu yóbbu ko indi ko dans des procès il est le seul boo xam ne buy dem procès ah qu'il le veuille ou non dem na ba ni problème banal la bàyyi leen ma dem dellu si xale yi ni ko sa tànk suñu tank ñu ni ko fii ngay jaar indi ko ay problème pour résumer toj vitrinam hmm. aspirer ci ko lu nekk c'était pour le tuer je le répète aujourd'hui il voulait le liquider am na moment boo xam ne seen problème yëpp mooy nañ ko liquider suñu bëggee suñu processus continuer à un certain moment kon li ñu ko puissant noonu lu ki la oui eh, mais c'est kii produit toxique tout le monde le sait mais Guy Marius Sagna sax mais ginnaaw loolu mais ginnaaw loolu mais def nañu ay yeneen ak yeneen yu bare yoo xam ne mais après à un certain moment il n'osait plus maintenant il fallait d'une manière écarter ko l'affaire Adji Sarr est mm-hmm. ñu indi l'affaire Mame Mbaye Niang d'autres choses et crois-moi mm-hmm. billa ils avaient même préparé d'autres affaires yoo xam ne jotul génn ah bon xam naa li ma wax mu dox li muy dox Ousmane dëgg taxaw fi mu taxaw tàllal objectif fa mu dem léegi nag ñu ni bon on va aux élections 2019 il ne pouvait pas penser que de Ousmane pourrait avoir ce qu'il a. ñu dem ba à la non non avant ñu yegg si 15 pour cent bi on était en campagne on s'apprêtait aller en campagne électorale où des gens je le dis ici aujourd'hui que na ma baal booba jete dans son cabinet ñaar la woon man ak Fatima Mbengue que je salue au passage. Fatima moom rek ñoo nekkoon ci cabinet bi période boobu en des gens sont venus avec des mallettes préparent l'aider pour la campagne électorale wallahi des gens qui. xamoo fu ñu jógee te Sénégal la bon tey ñëw seen mallette pour di proposer beaucoup d'argent pour la campagne électorale la réponse a été ñett ñett man ci ñi ko mere woon laa bokk waaye nag li taxoon mu ni déet après quelques ans on s'est rendu compte que il avait raison ñu def campagne di fortaatu di fortaatu ba suñu campagne. et qui étaient ces gens-là xam naa ci ñu ah bare. kenn ki sax benn rappeur sénégalais benn rapport sénégalais moo ko indi woon il est dans le kii dans le milieu du showbiz. Mm. tout des tas de choses lu bare ah. mais il a toujours booba amaguñu essence bu ñu yóbbu ñu commencé campagne ñu indil ko ay centaine de millions mu nu ñett. ñu dee ba la ba ci élection yi nii. am na ku ko indil mallette. mu bañ. ku nekk ku nekk ci show bi waaw ñu kon ne. Omar Sow mu wax ne. benn organisation ah, parce que Omar Sow dama ko dégg mu ne président Macky Sall la Ousmane Sonko gisee rek te campagne bi moo ko moom. moo ko financé ah, loolu moom ay wax su ñu dem. mais lañ daaw mu nekk dernière question. mu dem ascension. il fallait le détruire ñu utiliser benn organe de la mm, place. Mm. mu wax ni il est financé par euh, Tullow Oil. mu gën def tollé. ci bis bi ñu démentir ko. on est allé a fait dix huit pour euh, on a fait on a quinze pour cent on trois troisième. ndegete le deuxième était en connivence avec le premier. Mhm. le deuxième. mooy Gloria bi moo wax la le deuxième il a di en ces périodes. Ousmane xale yi loo leen wax ñu def ko. résultat yi jaar yoon génneel xale yi. je me ba. Ousmane ni ko hey génnewuma benn xale la ba ma leen di wax ni fii leen jëm jóg leen vous n'avez pas voulu répondre c'est pas aujourd'hui que je mette les gosses génnewuma benn xale. ah bon tout dem rek boo tax man la Ousmane Sonko yaa di que il a été fabriqué ma lay bëgg wax ni su amee ku defar moo defar boppam mu continuer dem ñu ni. ah Madiambal revient Madiambal sous aveu dit que si laa dem xaw ma fan waxtaan ak ñoom ñi leen kii bu ngeen ko jàppul bu ñu demee deux mille vingt vingt trois deux mille vingt trois musibaam deux mille vingt quatre mu ñu demee musibaam donc ñu commencé def indi fi ay problèmes yu dul jeex léegi nag bi ñu nee ba toog ñu ñoom ñu calculer ñu ne il n'y a qu'une seule chose en tous les cas Ousmane ne devait pas être candidat. Uh-huh. Tu m'as dans beaucoup de plateaux. Mais Mayabé, Ousmane peut ne pas être candidat. Mais Mayabé, moi que vous avez un plan B, Manla Bamba. Nous avons un plan de A à Z, de A prime Z prime. ñoom ñëpp benn dénominateur commun la ñu am muy Ousmane Sonko. c'était votre non mais concrètement attendez attendez attendez c'était plan un plan de communication. lu ngeen gëmoon la. très bien mais moom comme il avait la chance il était en retrait il réfléchissait plus que nous il nous a laissé dans cette communication instant bi ñu koy wax on le disait avec conviction. Ah on le disait avec vérité mais lui il a dit mu ngi toog delluwaat ginnaaw daal ni si les gars parviennent à me bloquer qu'est-ce qu'il faudrait. Et la il appelle ses partisans, il leur dit Laissez-moi faire des vidéos. Il en a fait quatre. Vidéo, quoi filmer <laughs> communication bi communication <laughs> bi ñoom Ablaye Ba. ñoom Ablaye euh, Ba ñoom Saddeq et consorts. mais ñaar bi ñu ko bloqué këram te ñun je pense. booba bi booba ñu ngi nekkoon ci biir kii bi euh, ñu ngi ko bloqué këram. waaw ah, mais boobu amoon na possibilité. de faire Ablaye non non y a des gosses qui étaient là-bas qui étaient ah. bloqués en même temps que lui. en la def et puis il l'a fait avec son son portable. son portable téléphone téléphone. i l'a fait son portable mais nag en Côte d'Ivoire avec ces gens là qui étaient par appel WhatsApp ou comment lui il réfléchit ñi ko yëg man je suis membre du bureau politique wallahi la vidéo je l'ai même je l'ai manqué découvrir en même temps que ci jour boobu génnee laa ko découvrir en même temps que vous il a enrichi un cercle restreint qui fait pas plus de cinq personnes mu leen denc leen ko au besoin mhm. naa leen di ngen di génne par benn une première fois. mais ci biir vidéo yi sax expliqué na ko. une première fois une première fois on a dit Ousmane va communiquer.

de de la coalition dem nañ jëli fiche affaire yi jaxasoo eh mais ku leen wax ñu jëli fiche est-ce que Ousmane a wax Ousmane fu mu nekkoon Ousmane n'est pas là il est en prison donc ñii ah, dañu bëgg trahir kër kër kër c'est Ousmane Sonko qui les a parlé qui a parlé a demandé dem nañ jëli ko. ñaar rek ñoo waxoon ni duñ dem muy mooy mën a bësoo ni man dëgg-dëgg tant que je maa ngi am conviction ne Ousmane sera candidat soxlawu ba ko keneen ki mooy El Malick bàyyi bi ñu demee dem dem dem dem dem à un certain moment on toujours dans le cas de Bakiyam mm-hmm. mu xool jékki-jékki ñu dem au procès du conseil ci euh, du de la cour suprême ce vendredi là où l'on disait ni cour suprême day ñëw wax Sabassy fay li mu wax mm-hmm. confirmer ko on sort et Ousmane va aller chercher ses fiches ñooñu dégonflé wu envoyé nu à Dakar ñu wax ni qui ça va poser un problème. Il y a un problème de timing. Un il faut une stratégie. Il appelle les 5, voire les 8. Les 5, non, les 5 là-haut. bon, maintenant, il va falloir qu'on récupère le parrainage populaire. Hein? Le, le parrainage qui citoyen. Mmh. Nous versons qu'on fait. Mmh. Nous faisons honneur à Diomaye. Parce que lui, il est le seul parmi nous qui est en prison. Mais voilà. je je pense qu'il était en voyage euh, qu'il était en voyage au niveau de la France. maintenant dama dégg ñëw dañ ko woor bu ñëw ci lañ ñu parce que moom euh, dafa xaw a daw sax ci muy laaj. Euh, non xaaral xaaral xaaral xaaral du si. mu ni donc versé ci koy Diomaye les techniciens ils ont fait comprendre que ni loolu sax rek moo mën a ne on ne peut pas préparer avec le parrainage populaire on ne peut pas préparer avec le temps court on ne pas préparer pour ñu préparer nit kenn kenn la ñu mun préparer on va préparer Diomaye. Mais ce n'est pas parce qu'on va verser le parrainage populaire ci Diomaye qu'on va le faire d'une façon on va le mettre à la ligne de départ mu pare entraîner jàpp forme su ne ëpp mu démarrer. waaw on va le faire sérieusement mais on dit Cheikh Tidiane Dièye viens reviens et va chercher tes kii tes fiches euh, doyen kii doyen kii Habib toi ah, attends ñu jël suñu parrainage ñu fente leen jël suñu parrainage député ak élu jox ko Habib Abletek mu brouillé seen carte. Mm. ils ont fait focus sur Habib et focus sur kii en creusant pour voir naka la ñuy fexe ba Habib du nekk candidat. Mm-hmm. en cherchant Ousmane Sonko naka la ñuy def ba du nekk candidat ils ont oublié Diomaye. Mm-hmm. Diomaye est passé. lépp yàqu. parce que Habib ñu ngi wax ne Habib dafa am affaire de jaay oto. dañ ko doon non ils cherché ils ont creusé partout. waaw waaw loolu nañ ko. Cheikh Tidiane est passé Diomaye est passé. Habib est passé. Habib dit bon maintenant kii kii passé na ba campagne baa ngi ubbi on retire Ousmane Sonko ni leen non ne retirez aucune candidature. Habib moo wax loolu. Habib Habib proposé na ko Cheikh Dieng ji proposé na ko. Mhm. pour retirer la candidature pour ju dooleel euh, Diomaye mu leen ne le faites pas. Mhm. Diomaye n'aura pas date de d'antenne à la à la ne dafay gisaane. n'aura à la RTS. ah c' est dommage que émission maa ngi jeex. on n'a pas d' à la RTS. Mhm. conservé et on ne sait te gaañ bi jeune ne pense même pas que mu bàyyi élection yi mu jàll. Mhm. mais continuons photo focus ñu def focus def focus ce n' est deux jours des élections bi nga xam ne ni léegi tout est réglé. Mhm. que Habib Sy retiré gaa ñu bañ. que l' autre s' est bañ le résultat vous le savez. donc loolu mooy anéantir seen kii mais pour ñoom dañu ko te même booba. il se disait que ñun duñu jàll que euh, Amadou Ba mooy jàll. bon gré mal gré parce que la majorité bëgguñu ko woon mais néanmoins xalaatoon na mooy jàll loolu moo indi donc pour répondre à ta question personne n'a fait Ousmane Sonko si ce ce ne sont les 15 là qui ont confiance en lui mm-hmm. si ce n'est que sa personnalité et sa persévérance son sens d'analyse ba tax mu dem ba réussir ce qu'il a réussi mm. avec ses lieutenants des personnes à l'ombre. Mm -hmm. On en connaît El Malik, on connaît Abbas Fall, mm -hmm. on connaît Biram Souley Diop, on connaît Bassir Diomaye Faye. Mm Je vous ai dit, je vais une grande révélation aujourd'hui. Oui, je vous ai dit que ni autour de Ousmane Sonko, il n'y a que des Ousmane Sonko. Uh -huh. La grande révélation, c'est quoi Je vous dis qu'en 2019, j'étais le seul dans le cabinet Manak, euh, Manak Fatima. sortir des élections de Le président Ousmane Sonko nous dit qu'il va recevoir toutes les structures des partis et des alliés. Il a reçu toutes les structures le jour où il devait recevoir le mouvement des cadres du parti. maa ngi toog au siège maa ngi toog au Fatima des personnes insoupçonnées au Sénégal des cadres de très haut niveau insoupçonnés nit day dugg si ma ne i non c'est pas mu ñëw émarge yóbbu ko. loolu ñu même man même man Mayabe. Mm. billahi je ne les connaissais pas. j'étais agréablement surpris. nit day dugg si man waaw non c'est pas vrai mu ñëw alors la fille là qui discrètement émarge dugg ñu def seen réunion ils sont sortis dans seen oto dem seen yoon. est-ce que loolu moo taxoon Ousmane Sonko def révélation parce on disait même que ñi. pare sax lay mais déggoo li ma foofu laa mën a yem. déggoo ma la des personnes insoupçonnées boo xam day dugg si ma tiit. amoon ay ministère. non Bamba émission bi jeex na alors. émission bi Bamba sax. prenez une chose ah. prenez une chose. un gosse a dit sànq que Ousmane dafa yéewoon rek. Mm-hmm. mais ci biir Pastef am na ñoo xam ne poste Sénégal yëpp mën na ko assurer comme ça se doit. mais comme ñun affaire du seddoo te affaire du jël ñoo ko moom. Mhm. ñu defe ko nii baat di que ni élément baat xaw ma ministre yëpp. man ma yaakaar xaw ma. xaw yëpp est-ce que moo taxoon est-ce que moo tax ngay jël portable yi parce que am nañu seen noonu. seen noonu seen noonu lu de. père ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw léegi tàggatoo bi mooy ñuy xaar tàggatoo bi tàggatoo bi. Ah, parce que su ma di xam nga père ñu ci. waaw Macky Sall ba defal. wax ci biir wax bi. Mm-hmm. ma Macky Sall bi gisee États-Unis booy dañu daw di photo moom ak yooyu man Macky Sall su ma yàlla defoon ma tase moom ci réew yu am démocratie yooyu noonu. Mm-hmm. ba tey may xaar sama réew nag mu gën a dox ci démocratie boobu. Mm-hmm. dinaa ne ko comme ni ma la ko waxee sànq. suñu doom yi dee lu tax lan moo ko waraloon. tout